koppar yi ñu jël li nga xamni ni tax na ba ci ñeenti at ñu liggéey ak ministère de la santé ci walu gëstu jëmele ko ci naka lañuy jappalé euh naka lañuy jappalé euh jigen ñi xalé yi ak euh, ñi xawa nek euh, adolescent naka lañ leen di jappalé ci wërgu yaram benn million dollars canadiens xalisu xalisu Canada la euh mobiliser nañ ko te loolu tax na ba euh, ñu développer tay ji ben expertise bo nga xamni dina tax ëllëg ministère de la santé pour pour euh, jëfëndiko euh mouvement yi nga xamni ño ñoo nekk ci gox yi dina xam ban yoon légui lay jaar ndax ay chercheurs ño lekkelo ak seeni natango yi nekk bitim rew ay canadiens mais aussi l'organisation ouest africaine pour la santé ñi nga xam ne ñoo nekk ci sous-région bi ñoo lekkelo ba euh, liguey ben liguey bo nga xamni ni nii ku ci nek gox ba nga nek dëkk ba nga nek woné nga ni am euh possibilité euh, utiliser euh, ñi nga xamni ni ñoo nekk ci gox yi ñu tudde len ay association les bàjjanu gox pour que ñu mëna jappalé système bi te du système bi mooy jël xaalis di fay la fonctionnalisation de de de de l'activité. c'est-à-dire ministère toujours dinay liggéey pour di euh, am nay services yoo nga xam ni ci loolu la seen xel màcc ñu ci liggéey di ci mais services yooyu parfois dañu soxla euh, gëstukat yi di len niital yoon bi di len wax ni yoon baangi ni ni ngeen wara jaar et cetera loolu nak le gëstukat yi def gëstukat yi ñoo taxaw ak ministère niko quel est le problème mu man de problème bi moy naka lay fexé ba ñi continuer di liggéey ak man té du fi indi ay di créer benen fonction publique ñu dal di jël lolu geustu ko ci la ñu ko tëral def lolu ñu tuddee euh, utilisation format euh, activité génératrice de revenus au profit des badjanu gox wax leen également l'essence même de la participation communautaire euh, démontrer que ni c'est un concept mun un ancien médecin une journaliste à la retraite je vais m'investir dans l'esprit Badjanogor de euh, nga par rapport ak li ma jàng yëpp sama li ma liggéey lépp léegi li ma dese ci sama dund naa ko féetale pour jox delloo sama gox euh, euh, euh, li nga xam man am naa te donc c'est cet esprit c'est-à-dire c'est le concept bàjjanu gox même xalaat bàjjanu gox mu dépasser. ay jigéen buy dem di sol blouse di dugg di mais c'est un esprit loolu la ñu démontrer ci ci ci ci euh, projet bi ñu ñu ñu ñu ñuy partagé tey ji parce que concours la woon téeméer ak juróom fukk plus de 150 euh ñom lañu ñu tànn ci 20 ci ñaar fuk yoy ñu ci tànn ñent ñoo ci ñent ñoo ci francophone ci ñent yoy Sénégal bok ci Sénégal aussi dafa nekk dëkk bo nga xamni ci walu xam-xam ci walu gëstu dañ ko jox cër dañ ko jox cër et c'est loolu moo tax ba tey jii euh, bu ngeen gisee sunu projet yu bëri jëm jëm ci walu gëstu buñ ko déposer ci ci euh, concours yi nga xamni dañ kay dañ kay dañ kay dañ kay lancer la plupart du temps suñu projet dafay jàll te tey jii mun naa wax ni lepp lu jëm ci walu gëstu rien que pour par exemple gëstu jëm ci walu euh wergu euh, yaram ci digënté euh, at 2000 euh, 2012 euh, ak légui ni euh mobiliser nañu ci walu gëstu ci xaaliss lu mat 20 milliards de francs CFA rien que pour euh, woné len ni len té gëstu yoyu xaaliss bobu ay compétition la manam suñu gëstu kat ñoy dajalo dem soumettre gagner indi déroulé lolo parfois lu ci bëri état bi du ci joxe dara mais ay compétition la sunu chercheurs yi dem diko gagner di indi di liggéey pour euh, pour euh, mbir mi mbir mi kanam